du défenseur de l'AIC Saloum, le numéro 8 qui récupère. Attention, voilà toujours pour les bleus et blancs. Le numéro 11, très le dribble, qu'est-ce qu'il fait Il conserve toujours le ballon. Récupération de l'AIC Saloum. Attention, contre-attaque de l'AIC Saloum. Attention, il lève la tête. Il essaie de dribbler, il passe pas. Récupération du défenseur. Le Darou Salam Dégagement. Ballon toujours conservé par Darussalam Récupération. Le Salou. Darussalam Salam qui récupère le ballon. Le match doyen. Donc également, du côté de l'ASC Dalou Salam, il faut impérativement gagner ou rester sur le canon Donc ce ne sera pas une partie de plaisir. Attention voilà, bonjour, bonjour ici. 2022, avenir 4 contre Macky Mbengou, nous allons jouer 24 Mu am beneen match également bokku jox bu contre Santos de Diakhao nous allons jouer ci ci demee au programme avenir Kajoor contre Macky Sall Mbengou match prévu à Kajoor bokku jox contre Santos Diakhao kon loolu mooy programme préliminaire phase départementale tey Diogo bu Diamagadio moo gagné Tabagui 2 à 1 Diambar de Pathé Thiangaye a pris le main. Aïssé Salou qui pousse. Attention, qu'est-ce qu'il fait Doué le en profondeur. Il lève la tête. Crochenal. Attention, Bodegui, il assiste. Mais le défenseur ne se laisse pas faire. Toujours euh, le ballon. Attention. Attention, corner bien tiré. Récupération.

la position du gardien. Toujours en position de la balle. Attention, jeu triangulaire. Attention, les numéro 5, grand dégagement. Attention. Mwen k ° pek k a ad channel recit mi neuf la waaw c'est vrai bon joué nañ euh, trois sorties voilà bon yàlla may ñu defet ci ñaari sorties yi may ñu nam ci beneen sortie bi tey nag ñu def xëy na yàllaa ko tudd mais jour yi moyen nañ la mayoo vraiment bon li ñuy ñaan yàlla daal yeneen ko bi bu ñëwee aussi ñu ñu mën ci sori bi yaa ngi jël. qu'est-ce qui n'a pas lu doxul tey lan moo doxul. waaw tey ça lépp dox na dox na lu ñu gis daal mooy que bii bi ñu jël am na faute boo xam ne dañ ko libéré mu dem waaw faute boobu nag moo ñu jëloo bi mais bon joueurs yi moyen nañ ma joué nañ tout c'est am naa ay occasion nag yu ma waroon a dugal jeexal match bi mais bon xëy na yàlla nii la ko bëggee woon moo tax sama position si poule bi bon waaw mun naa ne quatrième la quoi quatrième la su ma sañoon nag ma bokk ci mes troisième ma nekk mes troisième qualifié waaw parce que amoon naa possibilité bi mais peut-être sama deuxième match bi ci laa nelawee mais bu si jëlee woon sax un point peut-être konoon du ma nekk situation waaw sant yàlla rek gën a si liggéey bi préparé yeneen tëb yi. mu dese la coupe di dolliwaat entraînement yi di joxaat confiance jour yi di mobilise waat koñ bi yëpp rek ci ginnaaw jour yi ñu fexe finaalu ko incha allah. d'abord maa ngi leen di remercier quoi di leen sant di leen gërëm quoi ci liggéey bu am solo bi ngeen di dem comme ni ngeen ko gisee rek ay ñaari équipe yi n'ont pas démérité quoi te nii rek la mënoon demee match nul ñoom ñaar ñëpp joxe nañ le match était équilibré xam am na jeu am na xale yi joué nañ ak engagement détermination loolu moo ci am solo ko gis nañ ne aussi ñun ñun qualifié nañ ba ba xool on a deux deux deux victoires deux nuls kon génn nañ ko on est deuxième sur suñu coup ñu ciy sant yàlla bu baax ñu remercier supporters yi ak dirigeants yi comme comme ni ñu koy waajalee yëpp parce que match bu ci ne koy jël avec philosophie te fi ñu toll nii élimination direct la door mu toog kon match yi du yomb waaw match yi day maanaam day